sant ci taxawaay bi nga xam ne taxaw nga ko ci CRD bi li ci war lépp def nga ko te war tubarakallaahu ñi nga xam ne ñooy chef de service yi ñoom it leen di sant di sant sécurité bi di sant ñëpp bàyyiwul kenn di leen xamal ne li ngeen wax dégg nañu ko dañuy buñ demee ba ca fan yay mujj nga xam fi la ñuy def évaluation danañu xool luñ ci def ak luñ ci def wóor nañu ne nag pas-pas bi ngeen am ci def kooku moom xam nañ ko bu baax ndax kenn ku ci ne lii def nga ko budul benn ci pas-pas kon ñu ngi leen ci gërëm bu baax damaa euh, ñuy xam buñ ci def ak buñ xamal ne itam bis bi ci yi mat a gën a jàpp la bokk benn bis boo xam ne bii ci yoon wi ëpp na ko ci solo ndax Sëriñ Tuubaa moo lu am solo ci Tuubaa moo ko def lu am solo ci muridisme moom la lu am solo ci lislaam lu ci bari moo ko def leneen li ci des ay bokkam ñu nekk ci waawoon ak ñeneen nekk jàpp def jàpp ci lañ man doxin woowu mooy wi nga xam ne moom la ñu xam ñu di ko doxe wax wu nekk dara du ca manqué kon bisam bis bu ñu war a boole ci programme yi la am na ku ñu fi laaj léegi mu ne bokkul ci programme ci programme yëpp la war a bokk lu ñuy def ci màggal yi lu ko def ci bis yi di ko def ci bésu Sëriñ Tuubaa yi bés bu war a defal Seex Masàmba li ngeen diyee lépp ngeen fexe ba mën koo matale la ci ëpp lépp ngeen def ko xëy na def lépp ba mu mat jafe na waaye nag la ngeen mën ngeen def ko loolu ñu ngi leen ci gërëm bu baax gouverneur dirigé nga ko dirigé bu baax kenn ku ne wax nga ko laaj nga ko ak préfet ñu taxaw taxawaay yu rafet ba lépp mën a jàll jàllin wu leer woo xam ne kenn ku ne xam na ne lii benn de mën ko gën a tege ci yoon kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant bu baax di leen ñaanal yàlla bu baax. kon nag dañuy ñaax daal service yi fi toog yëpp ne buñ commencé ci zone Z mooy ñu yore affaire u mbalit mi euh, kii bi cet gi que lu ñu waxoon daaw lu ñu defoon daaw ñu gën ko yokk te wasi ñu jéem a lëkkaloo ak comité bi comme jàpp na ñoom le 10 la ñuy def seen seen set setal le 10 bu jotee incha allah. lépp lu xam ne laaj na ko ci jumtukaay ñu yóbbu ko ànd ak mairie bi aussi ànd ak ak yi pour mën a sa sosal mën a sa sosal dëkk bi pour hydraulique aussi moom it dañ koy ñaan comme moom euh, ñaari citerne la ñoo xam ne daaw te ñu ne ñaari citerne yi da nga ko gën yokk loolu nag xam naa il faut ñu bind lettre ministre de l'eau et de l'assainissement war ko na ko nag magal gi le 20 la te luñ ci soxla daal moom ëpp na ñaari citerne lu jéem ko yokk mais lu ci gën am solo aussi mooy forage bi comme forage bi amagul sotti dóob te la nga ne dañ ko programme 2023 loolu nag damay ñaan Senelec ñu ut benn groupe teg fa ndax courant bi coupé mënoo xam kan la nañ ko teg benn groupe 72 heures avant comme sa léegi courant yi mën kii mën a continuer de fonctionner alhamdulilah comme ça comme ñoom jël nañ en charge mais kuy yore kuy yore forage bi bu koy doxal moom yaakaar naa il faut nga wax ko na ko nag euh, bu mag a une semaine na fa commencé di fa fanaan ndax moo gën muy tëj guddi di dem bu ku kii bi kii dafay fanaan daal foofu mu sësëg sësëg machine bi ñu continuer di ko taal bu dégg bëccëg boo xam ne daal ndox du ndox du mag ndax ndox mooy lépp léegi nag Senelec moom jël na engagement ne moom lépp lu ci xam ne moom ci moom ci côté la dina ko def mooy dana fu indi ñaari descente dana ko def hors délestage dana fi indi groupe électrogène dana fi indi 200 dana fi indi ñaar téeméeri ampoule yooyu vraiment kooku moom dañ koy sant ci des nag mairie moom moo moom ndax comme mairie bi aussi kii mi ngi ñëw di la jàppale li ci des lamp yaakaar naa yooyu nag mën nga xool nag li ci des bu ci indee 200 mi la ca des nga jëm koo nga jëm ko nga jëm koo nga jëm ko doxal loolu moo moom li ngay doxalee aussi ak ci ndox ndox mi ci ci ci affaire lamp yi nga doxal ko aussi ci affaire service d'hygiène def ko ak élevage ndax euh, ndax lépp mën a mat ndax élevage nee na fii bu ngeen bëggee xaj yi ñu xaw ko kii foog ngeen ñu xaw ko gaawal yaakaar naa bu ngeen fa jógee rek bu ma gisee le maire de Touba euh, Abdoul Hadj Ka na ko kat ñun lii leen bëgg a def avant le 10 lii ak lii la laaj lépp yaakaar naa dina dina dina mën a am kon nag damay invité aussi service d'hygiène ak Maam Jaara li ngeen soxla aussi ngeen bind ko jox leen ko naa it ndax man mën ko teel a xam yooyu yaakaar naa yaakaar bu ñu ko defee kii. boo jëmee ci affaire vidange aussi damay ñaan aussi waa ONAS lu mu gën a gaawee rek nga teel koo kii comme saa aussi ñaari kame yi nga wax pour ñeent fan ñu mën a teel a mën a sotti bu sottiwul aussi ñu man ko teel a xam ndax aussi comme ñii ñi nga waajal réunion d'évaluation bu réunion d'évaluation jotee ñoom dem dañ leen invité boo demee nga wax ak ñoom boo waxee comité bi dana dégg li wax bu feree ni léegi ñu mën a xool nag yan mesure la mën a jël fekkee en yan mesure mën a jël diggante bi indi ko pour IDECO saafara mooy même chose aussi pour OFOR pour bâche yi Sonatel bu ñu fa jógee dañ jéem a xool ak euh, monsieur le sous-préfet dana xool ak Sonatel Touba pour xool naka la mën a defalee ba réseau bi euh, bu nekk Daaru Karim réseau bi euh, réseau bi jot loolu yaakaar naa ci li ci des nag mooy police gendarmerie sapeur pompier ñooñu sañ liggéey ñoom yaakaar naa ñoom xam nañ ko miñ nañ màggal yi li ci des daal mooy ñoom ñi ngi noonu comité bi ñu ngi noonu dajee leen bu ngeen dajee waxtaan rek yaakaar naa ngeen wax li ngeen bëgg ñoom la ñu wax la lu mën a lu mën a demee loolu yaakaar naa boo ko defee rek du kii dowaar nag danañ ko wax aussi mu jéem a euh, yombalal ni ñëw wante yombalal ñi ñëw nag taxul nag ñu bàyyi lépp mu jàll yombalal taxul taxul nga bàyyi contrôle waaw moom loolu dañ ko yombalal mais nag lu tax aussi ñu bàyyi contrôle ndax euh, bu xew-xew yu mel nii amee ñuy gàmmu ñoo rax dem ñooy ànd yow yaakaar naa loolu aussi ñu jéem koo kii région dañ ko wax poste avancé yokk garab yi dañ ko ko wax service d'hygiène aussi moom wax nañ ko léegi élevage wax nañ ko léegi commerce aussi moom dañ koy ñaan nekkoon nag mu gën a yokk euh, contrôle ndax aussi jamono ji bu toll nii amoon na prix yi mënuñ ko yokk wante nag amoon na fi benn màggal bu fi amoon ñu koy fàttaliku daaw bu am xawoon na ñaaw trop loolu yaakaar naa aussi ñu jëm ci taxaw ba su jotee kenn du téye lu xam ne produit yoo xam ne moom la nit ñi gën a soxla ñu téye ko ba mën a prix bi gën a ba ba prix a mën a yokk yaakaar loolu commerce dina ci liggéey ak lu xam ne nag li baaxut produit yoo xam ne dafa périmé ñu gën ci taxaw ci contrôle bi ndax waxtu wi leen nit ñi mën a am temps pour mën ko mën ko jaay DMTA nag dañ saisir ministre de l'intérieur dañ ko bind lettre ministre de l'intérieur wax ko daaw léegi léegi lii nga indiwoon ca màggu daaru karam bi ñoom i ren it léegi lii lañ soxla loolu bu ñu rek bu ñu joxee léegi léegi yaakaar ne fii ngoon dañ ko mën a bind waaye CSA aussi moom it dana saisir ministre du développement communautaire moom mu yor affaire dund bi ooye forêt moom it aussi dan yéenay bind lettre jox pour wan ko na ko li li ngeen soxla ci matt ou bien li ngeen soxla ci kër yi wax na sa ngeen jox ko chef de secteur bi nee naa la yokk leen jox leen ko préfet pour mën a yëg la lettre bi départ na parce que lettre bi day départ Mbàkke ñëw fii fii lay départ di doo ko yóddee kii bu koy yónnee moom dana ci jox benn copie ñu xam ne kat lettre nekk seen fii mais nag pour mu xam ne préfet xam ne ma nga bàkke moom moom ngeen koy jox waaw yaakaar naa daal loolu ma amoon sëñ bi di leen gërëm